nuñ tayal jàll itam question yi waaye loolu lépp rek dañu xam ne benn plateau bu ñuy door a waajal waaye fu ñu rek nañ taxaw yaatal ko te xam ne ci liggéey bi la bokk kon sëñ Boussa bismillah jërëgeen xol sedd na guy te xam nañ ni day gën di sedd rek nuy gën di rakkaaju ba nu yegg ca bis ba insha allah sëriñ Hamsatu jërëjëf mhm. euh, man day sama xol sedd na bu baax ndax damaa xamoon Cheikh Mouhamadul Xayri Jaxate sa baay bu baax muy doomi sëñ Amzatu di muallim di xatiib eh, dee dong dafa am dee faawu am tool bii nga xam ni daje ci ba tàyyi ci waar yi muy leeral Sëriñ Tuubaa dem bàyyi fi doom tudde ko baayam nga taxaw lii wax lii nga wax sa baay xolam sedd na guy yàlla na nga ko sutu fan ci barke sëñ Touba sëñ Mbàkke Bousso dafa am benn bataaxal bu mu doon bind Sidi Ibrahima Niass def ca suuf ne ko waris naa min al abaai hifza widaadikum fa inna isa mitna yurusul abna kenn ku ne nuroo sa baay ci jëf ju baax ja mu doon def fa mu taxawoon day mel ni kenn déewul yàlla na la yàlla musal bu baax sa waajur wa sama xarit la woon di sama kilifa di sama sëriñ waaye taxawaay bii nga taxaw fàttali na ma ko tey bu baax a baax a baax eh, noo ngi sant ñi nga xam ne kenn ku ci nekk déglu la ni ma ko waxee woon ci njaal bi moo ma dàqal fuuf di wax. lay ndeysaan. sëñ Gana mi sëñ mag Adama Diop mi nga xam ni. mun wala te yàgg na kër soxna Astou mhm. xasida yi sëñ bi danoo wan rek fi bunt bi nekk woote ci. Mhm. soxna Astou Gawane mas na maa woolu ma ñëw mu ne ma xasida man jaa bil ci fa lahu xayrun minha laa bëgg nga waxal ma ko. nga wax nga tafsiral ma ko doomi sëñ Tuubaa yi dañoo bëgg xasida yi te sëñ Muntaxa mii mbuusum gone muñ sol yàpp mag la woon ci bi muy nekk ak baayam ba tey jiw mag ci yoonu murit kenn mësu koo limaale ci ay doom authenticité rek lay dund murit gu jëkk ga képp lañu wat mboolem benn benn ya tàqali ko woon baax ga ca gee tab ga ca kee yërmande ga ca kee xam-xam ba ca kee yooyu yëpp la dajale ci jëmmam ci ba noppi muure ko nag taalibe gu rafet yaatal lool mbirum sëñ Tuubaa mi waaye xasida yi kamtalaaye li nga mën a waxal li li jaam a xam ci sëñ Tuubaa ci xasida yi rek la ko sëñ Tuubaa bindal boppam sëñ Tuubaa dafa wax ne laa yantahi li majlisi seytaanu staabatil mamaru wal awtaanu nee na sama dox tey na sama dal sama dal tey na seytaane du jublu sama barab benn journaliste su camerounais dafa ñëw ak màggal di reporter si ba mu demee dafa tuub ni tey laa ma gis tey laa ma sa gis ci àdduna mbooloo mu daje toll nii ci benn barab te kenn faatu fa loolu dañ koo seetluwaay miracle la lu toll li daje Touba te kenn du rey moroom fu ñuy buuxante ne gën waroon naa fekk bu doon ci li aada xam kon bu ñu dajee Touba ñu bari dañuy dee ci biir jumaa ji mhm. ñii dee kër sëñ xalif général ñii dee kër bu xalif général de Baye Fall ñii dee ci armeel ya ñii dee ba ndax ba bousculade moo mel noonu fu mbooloo di daje moo mel noonu mhm. mu ne lu toll ni lii daje Touba daje Touba te kenn faatuwul mhm. sëñ Touba dafa wax ni ku xas seytaane ku dul man mu fayu ku dul man seytaane mas na laa fi benn barab def loolu la fa neexul yàlla nga xam ko wéy ca ba mu des man daal di juuf mu ne ko mbàkki mu ne ko xam nga lu tax saytaane mënu lu ma dara moo ko àdduna mu ne ko buñ ko xamoon jël mu dañ leen a binde fi sama kanam yàgg gi sëñ tubaa ànd yàgg ci àdduna yàgg yàlla yàgg ak bi ci biir xasaay dem koy wax abatullaah salaasu alfa amin qabla irsa irhashi adama nga xam ne boo ko weddee sëñ tubaa nga weddi sëñ tubaa dafa wax ne xale mi yanqulu min lawhika yaa man lii saadati damin habliya sidqan wa wafaan warida fi kulli cheyin wa taxul lil xarada ila siwa zaati abada ma saa ani yaa man safa i kabada bi xëyri zikri tur yàlla ngoog yaa man xamaa ni anasar makri tentation yi dafa bari lool bari lool ci lislaam mu jóg moom mi nga xam ne fi mu moom rek moo mën a wax yàlla déglu ko mu bëgg wane fi bunt bi nekk mu xasaay di nga xam ni dafa boole lépp ni nga ko waxee lii jut bi kaw nil makkaati bi hudan abadan hajjan wa qaswan wa mahral huri wal xiidi sëñ tubaa nee na lu baax looy def yaa ngi def lenn lu baax waaye boo ne cas ak xasida ku jàng yaa ngi boole yu baax yëpp di ko def xasida yi ni ma ko mën a misaali fii jamono toll bu ñu doon ay rajo sunuy bëtër yi dafa jeex sëñ mu sëñ Muntaxa bëgg noo sarsewaat bëgg a sarse waat batterie yi. Mhm. nit ñi seen batterie yi dafa jeex. Ah ah fa min mushrikin faqran mhm. wa min mushrikin diinan mhm. wa min mushrikin daynan wa daje na ci bindee fii yu bari yi tawat yu bari ma mooy yàlla gu bari gi batterie yëpp wi dina liy chargé waat batterie yi nag mooy xasaayiti borom tubaa yi sëñ tubaa ko wax sëñ tubaa dafa wax ni muhammadun zikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru xalbi wa ahdaai wa raaxaati nee lu ma sonn sonn lu ma loof loof su ma nee muhammadun benn yoon rek damay amaat beneen souffle beneen souffle amaat beneen élan amaat beneen énergie bu yees sëñ bi dafa bëgg a sar si sunu xol yi xasida yi mooy lépp naka jëkk ñi jige woon euh, damay faral di wax ni fu sëriñ bi nekk léegi la xew waaye bi sëñ Tuubaa nekk jaareem kenn xalaatul naan fu sëriñ bi ne fu sëñ bi ne ku ko wax da ngay dee ci benn yu mbaa kalaayam ci kër gi ba euh, ba xiif jàpp na ma waaye kenn du la wuyu kenn talu la koo dajal du la wuyu boo bëggee gis sëñ da nga naan ana fu sëñ Masamba nekk ana sëñ Masamba fu mu nekk noonu la sëñ Masamba nga fee wóor na leen ne boo fa demee léegi gis sëñ Bamba ndax boo dee kilifa gu mag léegi dawal sëñ tubaa ñëw fa di fa indi ay téere yu ñu war a sotti bu ko defee mu ko boo demee ne ko diwa nga fa wala sëñ tubaa woonu ko ma dem ne ko diwa nga fa boo bëggee jigee sañ tubaa taxool ak xasida yi ñi nga xam ne ñoo féete woon ci xasaayiti borom tubaa yi sëñ bàmba daf leen a gànjoo ni buur ak dagam bu doon kuy lekk kanaan ñoom la ñoom lay bokkal ni nga xam ni euh, mu al malaaykatul muqarraboona yi bu yàlla defoon kuy lekk kanaan ñooñee lay bokkal waaye xasida itam ñi ci féete woon di ko jàng ak di ko sotti ak di ko bind dañoo miinoon sëriñ bi di jooj ndoog moom mu di leen gis waxtu wu ne miraaran ci jant bi ak li muy jafe-jafe ak li muy naq naqaree gis ñuy gis mbégam di gis bëñam di jël di barkeeloo ay tibi ñamam muy saqul ne di leen ko jox bari na loo xam ne lii wax na ko ci boppam ca waxtu wañ koy jàngal xasaayit képp la la doon daanañ jàng xasaayit ba ci yàgg muy déglu di déglu li mi nga ba yàgg mu jumen bu def këlëng ba nga xam ne kii àndutu nag sagoom daanañ ko jàngal xasaay ba yàgg mu ne xiif benn muy buuna te xeeti ñaat nit ñi nga xam ni daaj yi sëñ xew doon adduna fi mu ne ñii bu ñu jàngee xasee guñ jàng léegi Bouchra <coughs> Bouchra sama turoon loolu lañ jàng de nu kuréel bi toll Bouchra yi toll nanu kenn ku nekk jàng Bouchra da xool ñaata Bouchra la jàng genn kàddu ngay dégg mel waaye ku ci ne jàng na fi mu nekk nii kuréel yi loolu moo tax sëñ Tuubaa sosoon ko lu ñu jàng benn benn xës bu ñu jàng jàng nañ ko kemtalaayal nu mbooloo muy jàng toll bari gi li sëñ Tuubaa soxla lu mu gën a bari xéwal yi gën a bari lu mu gën a bari jàmm ji gën a bari yafirru min alxaari lain wa isbuhu fa asraaru zikrillahi tuxsil maanida bu jëkkatee waxi borom tubaay rek iblis daw na tabassama almuxtaaru min jinaasi ku ne wax na ko fii jinaasa mooy xayrun mawaddatuhu dayrun adawatuhu mayrun madihatuhu lil muxliq li fatini alxaqu tammalahu wal fahmu laasamahu wal ilmu max jëmlatul aadawi fi rasani loolu mooy jinaasam nee na jinaasam boobu mooy bëggal rasulullahi boo bëggee xam li soppi làkku réew mii ba bu murit dee wax nga xam ne kay wax ab murit la naan sëñ bi soxna si fatu dallu xéewlu waxin yooyu wax yi ni sëñ Tuubaa yu mu waxee ci xasida yii la ay waxinam la tëbb réew mi ba kenn dootu wax tudd Rasulullah nan jabaram mbaa soxnaam mbaa euh, jabaram mbaa bàmmeelam mbaa muy lekk mbaa muy naan waxin yu sëñ Touba dafa wax ni. rasulullahi waxuma ko tagg ràppetu tagg li tubaab yi waaye seen jabar yi ak seen xaj yi ñu di ko way plage yi di ko way weer wi di ko way leer gu neex waxuma ko rasulullahi jéttuloo bi ab kaaril am daaxi la daa majhulu amri wa jahru sa'i wa amri xalada nee na ñeege maari tagg laa ko tagg yu yees peq paquet tagg yu yees peq yoo xam ni kenn musu koo dégg kenn musu koo wax kenn loolu laa tagg rasulullahi moo tax isam tadaxtul ba sama wa qaala lii rabbihi fadlan suma nee na su koy tagg ma ngay muuñ di bég di bànneexu ndax tagg wii daf koo wormaal dalay wan daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bala ngaa xam teggi ni sëñ Tuubaa ak nu mu fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga yër xaside yi moom wanewul ni kat dama koo xam dama koo yab li naan damaa yab alxuraan loolu du wax yu nu kër gu mag damaa mi damaa yab sëriñ rasulaay du wax yu nu kër gu mag sëñ Touba dafa xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo xam ñëpp gën koo bëgg ñëpp gën koo warmaal ñëpp déglul fa kayfa atruku aman shukra za wasa shukru wasatin asnaal wasaiti turan inda zilmina ni asnal wasaidi turan inda zilmi aw kayfa usni ala fardin hawa xuluxan an marhi xadwana lusnu zawil firdi nu ma koy taggee moo nu koy ñàkk taggee nu ma koy taggee ak nu koy ñàkk taggee lahu li waj ilaahi day du sanam damaa amee borom tagg ko waaye xawma ko de di ko junj di ko mépp di ko joxoñ di ko misaal ngir cofeel gi ci moom rek bisil kamaali bisil jamaali bisil dawaayi bisil kuróobi yooyu la koy wax du naan borom nang borom nangam ja borom nangam ja kamel nangam kamel nangam taaru teggin woowu inaabatu la ak toroxlu la xasida yi nan ko fonkaat bu baax a baax a baax Cheikh Mouhamadul Murtada Mbacke ibnu Xaadimu Rasulullahi dikk na New York ñu toog ca kër sëñ Touba mu war a am lu mu war a bind ñu jox ko kayit di ko jox suume ndekete xasida ndekete jox nañ ko dara daal sëñ bi mi ngi am gan ñu muy waxal mi ngi plume bi mu war a bindee def nii ak jataayam bu tedd ba ak na ko yàlla bindee saa yu demee ba loxo bi tiim suume bi rek mu yëkkatiwaat ko fekk booba am na lu ko yitteel saa yu demee ba war a bind rek bu jubee kii rek teggi loxo tegaat loxoom ndekete nun noo ñemee fa mbindum sëñ tubaa teg ca sunu loxo waaye doomi sëñ tubaa da koy yëg ba tey dëgg ba ba ni mu de jële roccewaat lañ ko joxoon delloo ko ko joxoon loxoom laalul téere ba ndekete xasaayit borom tubaa la xasaayit kenn du ci bind ay adresse xasaayit kenn du ci bind ay numéro téléphone xasaayit kenn du ko lem di ko def ci poos xasaayit xasaayit du lu nu dal ñàkk a warmal xasaayit yi ñoo nu ko teg gis naa ci ginnaaw nit ñi dañoo bewoon di wane jànkatu xasaayit buy jàng mel ni ku ko jox xaalis di ko jox ay liaas di ko jox ilias ba yàgg mu jóg di ko ngàdd léeg-léeg ñun la woon image boo xam bii ku jàng xasaayit kee yenu ko ba ca kaw tay ko fi suuf mu mel ni dañoo bëgg a weddi la sëñ Tuubaa waxoon xasida yii ku mu yëngalul doo nit na mu daan yëngale ñi ci kaw haajal xasaa yi xulóobul anbiya xulóobul malaayika noonu la doon yëngale xolub góor yàlla yi maam Seex Ibra Faal dey xam nga ku ne xam na ko moom ci zikrulaay waaye daana def léeg-léeg bu ko ci yàlla xiiree mu ne yëkkatil ma kënu gi bu ko waxee rek jëwartu lay wax ndekete xasida googu kënu la te xima bilaadana an alqitaali wa kaana xaqan wa an aljidaali fi mu ne wa kaana xaqan taxawaayu anti misil la taxaw ci réew mi bakkaar yeeg fen yeeg caaxaan yeeg yëpp moo koy amortir mu dem ci àll ba noonu Sénégal ñii li ñuy def yàlla di ko defante ci sunu biir te gisuñu añ ba xëyunu dee ba jeex xasaay ci borom Tuubaa yi rek taw a ngi xut xuloog xadda ngi xuloog euh, euh, taw te seelu yëgul sëñ tubaa gis naa mu bind ci xasiday asbu yaat yi mu ne léeg-léeg dëkk nit mu ami doom am kër am njël am jàmm waa këram am ko dara waralu ko loolu dafa dëkk ak kuy jàng xasaayit borom tubaa yi mhm. da ngay dëkk ak ku nekk ak kuy jàng xasaayit mën naa am sax ma ngi lay tàngal fekk na moo la tax am kër moo la tax am njël moo tax am soxna am na xasida ah, xisab sëñ Mbàkke Maane bi ku ne xam na ko sëñ Mbàkke Maane dañuy toog di jàng xasida ba yàgg di jàng xasida Ahmad Suleyman bi sarfi an maziyaati kay maa taxuude zimaami li raziyaati xasida googu nga xam ni sëñ Tubaa da cee gotti adduna fa xuttu anha ila ma laahu yadxulu nii bihi jinaanan xawar xuuran wa fiyaati hunna alxawaani lawaati xal bu taabiwiha yuxtaaruhu yaxtaaruhunna ala salma wa jindaati di andi melawu jigéen ur ay ni am xelam di xalaat ñu naan ah moo ne xasaay dina jigéen ur ay ni dañ koy wayantoo muy xalaat loolu loolu def ci moom kéemaan sëñ Tuubaa di jàll fi kanam mu ne ko mbàkke maa ne mu ne ko mbàkke mu ne ko ana fi mu ne luy sa yitte mu ne bu dee ci yitte àdduna dama soxna soxna mu daal di koy jox ak ba ni ko toppal ci man ni ko toppal ci man sëñ Mbàkke baa na jël satala gi topp ci xaadimu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ba ca àll ba sëñ Tuubaa teg ko fi benn ba ñu ko toogal fii xaar ma ni men ab diir jigéenu uru ay ni fekk ko fa di jàngaat Ahmad Souleymane gan doon jàng kër gu mag hunnal xawaani lawaatil xalbu taabibuha yaxtaaruhunna ala salma wa jindaat hóoru ladallahi atraabun muqaddaratun taxta alxibaabi min albusaat salimaati mun leen waaye yéen ñu fu ngeen bàyyi ko ñu ne ko nuyu nu jëkk mun leen salaamaaleykum waaye yéen fi ngeen bàyyi ko noonu ko noonu àjjana lan bàyyi ko dun waa adduna nun noo nooy waa óorul ay ni lu ngeen di def fii mu ne sunu borom kër sëñ Mbàkke maane la nuy wan sunu bopp te di ko waajal ndax léegi mu ñibbisi sëñ Tuubaa di jàll jigéen ñee ni mes sëñ Tuubaa di ko Mbàkke maane mu ko Mbàkke mu ne ko ñoo doon waxal mu ne ko Mbàkke bu dee demee nii nay tey diir bu gàtt la ca rek faatu gisoon naa kuy jàng xasida fii xamoon naa turam xamu santam di jàng ma faatihal bishri di ci jàng ay lim ba yàgg mu seexlu waa këram nangatul ay soxnaam jege ko naan leen da ngeen a xeeñ da ngeen a salte boo fekk rek xam na ni lee mu dem ndax mu ngi tàmbalee gis jigéenu urul ay ni xasida yi li ci nekk ci xasida yi rekk la ci nekk jàng génn xasida am yoolub xare bu rasulullahi ba sa xare sallallahu alayhi wa sallam ak xare buñu ma sa xare te ñu nangu kataballahu tabaraka wa taala anna hazihi alqasidata qaimatun maqama xasawaati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa xasawaati jamil xusaat fi sabilillahi tabaraka xasida yi mooy sange sudul sange soo xam ni du toj sanga mooy forteresse mooy tata kataba laahu tabaraka wa taala anna hazihi alxasidata hisnun hasinun li qailiha an sheytani rajim wa an kulli aduwin zahirin wa an jamihi lmaka dunia wal axirati wa an kulli shaqawatin wa an kulli usatin waay lii ah dajeeg sëñ tubaa tax mu am ko de dajeeg sëñ tubaa moo tax nu mën a am lu ñuy waxandoog waa ajjana di ko waxandoog waa xamalatul arshi di ko waxandoog yonent yi di ko waxandoog malayka yi barki borom tubaa kon nag. sañ sëñ Mountakha yàlla na ko yàlla fayal. yàlla na fi yàgg lool te wér. sunu xol seet na baax. noo ngi jox ñëpp rendez-vous incha allahu. ci yeneen i jataay yi. ah di jox ñëpp rendez ci bis boobu boobule. waaye nag xam nga ni kenn duñu la onze tene wala sañ sëñ Mountakha moo xam fa muy dóor. bisub la dix man dafa rëy ci man ndax sañ Tuubaa tubaab yee ko yóbbu woon